ñu daal ñu ngi ñu ngi ñu ngi. alaaji ñu ngi koy encouragé bu baax. ndeysaan waaw. Mm-hmm. di félicité ki nga xamante ni tey mooy Jokal. alaaji. waaw. alaaji lan nga wax. nooy boog nooy bëri la Jokal. daan naa buuse. waaw daan naa buuse. waaw buuse daan na ma. waaw buuse wul ñooy bëre. waaw Jokal daan na tey mu ngi leen di ñëw. waaw maa ngi moom suñu combat leer na nañ. waaw maa ngi Jokal taxaw na. mais gis nga Jokal bi ñëw tey. waaw mais combat la. Papa Boy Djiné di ko encouragé parce que tey jii. Mm-hmm. li mu waroon def yëpp def na ko man dama jàpp ni ko téyeloo boppam ñoo ko yàqloo làmbam mhm. parce que mbër mënin papa mën naa la wax ni dafa mën a bëre mhm. làmb moo nekk affaire wërsëg affaire sens mais dafa mën bëre pour ñu koy encourager ak ñu koy jàppale ñu gën ko jàppale bokk na ci xale yi dàq bëre ci làmb dafa mën a bëre dafa am ay tolof tolof papa boo jine mais dafa mën a la baay baa la koo seetaan mbappat alaaji waaw baay la papa boo jine daanaka koñu falaay la la yaroo est-ce yaa ngi suñu nag moom ñoo yarandoo. dafa mën a bëre am na bëre. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais défaite ak victoire ak victoire ñoo ànd. tey ñëpp dañ koo yéene ndam. comprendre nga. Mhm. mais lii la yàlla dogal nañ ko gën a jàppale. te xam ne suba mën na baax quoi. alaaji jógeel balaa jokkel di la fekk di la dugal jokkel laa bëgg a bëreel na ñëw léegi ma door ko mais alaaji la jox nga jël ko barki Cheikhul ba ma joxee 1000 francs yóbbu ko sama eh, kër man ak on se connaît mais bu leen promoteur woowee duñ waaw maa jokkale est-ce que mu ngeen wut promoteur bu ko tëgg léegi léegi jox la ma. ah luy loolu waaw doo ma bàyyi nga naan nga nañu jox la. Ousmane Thiam dogo këram laa jógee léegi dafa bëgg combat bi gauche droite combat la bëgg. Tafa Diop ala Thiam. Demba Jama nag. Demba Jama combat lay wër. barki Serigne Bamba. àdduna Ousmane si moom a ciy jàppale Balde sax bëgg na combat yaa Jokal waaw woolan ko woolan ko mu eh. eh, di ko woolan ma ko. woolan <laughs> alaaji booy wol eh booy eh, wol leen ko jokkel. waaw na ko jël ba ñëw waaw sama combat moom. yaa jokkel xaaral jokkel mi ngi ñëw. waaw. ndeysaan lii am na solo. waaw di gërëm àdduna yëpp ah. waaw mais démb geste bi am biir Pikine. waaw mais loolu dafa rafet. booy ñaa ñëw. ñu tuddee ama drapeau booy ñaa indi ko. bàyyi mhm. baal na boobu lii la yàgg bëgg. ndeysaan Pape Sarr loolu bëgg. Mhm. léegi la fi jugee. Mhm. yow doom nday Bamba. yàgg ngaa dox ci jaamu Pikine. kon tey bu Pikine amee lii fierté la. mais ngir yàlla ak yonent bi. Ah. Pikine benn problème rek lay am. moo ñiy génn di communiquer te waruñu communiquer. ok est-ce que yaa ngi uh-huh. nit dama ne doomu aadama ci boppam bu mënul wax lu rafet day noppi. Mm-hmm. waaw parce que wax lu ñaaw yóbbu fen fenn. alaaji loolu. Ama du bërewaat 15 ans. Mm-hmm. Boy Niang du bërewaat quinze ans. Mm-hmm. te ñoom ñaar ñëpp ba ñuy liggéey pour votre avenir. mais yéen xam ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñooy génn di wax. non loolu lépp lañ arrêté léegi. non loolu garaaw loolu lépp lañ arrêté. mais si ay dégg. di ñaan jàmm biir Pikine Eumeu Sène non xuloo amul foofu. xuloo amul foofu xam nga la ma fa daamoon mal entendu ak xuloo ngay jaawale yow jàngoo yow Modou Mbaye Becaye jàngoo. Eh. mal entendu <laughs> mal entendu ngay jaawale ak xuloo mais Modou Mbaye ku ne xam ma ne maa mais Modou Mbaye maa Jokal dafa war a taxaw wala waru taxaw. Eh, sa combat Jokal combat dàqu. barki Serigne Bamba ñor na. eh non na taxaw léegi léegi. na taxaw léegi léegi combat bi day taxaw léegi léegi day taxaw eh day taxaw léegi léegi. mais léegi léegi léegi. xam nga loolu xam nga moom eh, alaaji day wax lu am solo. ah hélas xam nga loolu nekkul ci biir Pikine rek mais ci réew mi sax. adduna bi dama ne la fi adduna bi fekk ñi war a wax. ñi ngi noppi ñi ta wax di wax. Mhm. réew ci ci ci ci réew moomu ñu ne day jaxasoo rek. ñi maîtriser wul li ñuy wax. waaw mhm. ñi maîtriser wul li ñuy wax. ñi ñi ñi war a wax na ñuy wax ñi war warta wax nanu noppi. Mhm. loolu mooy réew mi. koo xam ne saa boo waxee wax njombe. saa boo waxee tasum réew. waaw léegi ku bëgg a dégg sa micro sax da ngay dem biir Pikine. waaw ko fa parce que ñëppay wax. Mm-hmm. ki ñëw tey ki ñëw suba ki ñëw bër ki dem bu ñëppay wax tax. Mm-hmm. wax bu baree rek ñariñ la day. day am lu mu def. waaw wax ba jaaxal ñëpp noppi ba jaaxal ñëpp a ko gën. waaw kay Jokal la ngi noonu. félicitations Jokal mi ngi dugg si na ci biir plateau bi. mais Jokal alaaji fii la jógee alaaji mbay nee na yaag moom seen combat dafa leer dafa war a leer. jox ko micro bi El Hadj. Alaaji Mbaye sama doomu ndey la. ah loolu. Alaaji Mbaye sama doomu ndey la. na bi nga joxe avance. déglu ma bu baax. waaw Alaaji Mbaye Kër Massar la dëkk chaque jour fu muy naanee café. Mhm. foofu la sama gétt nekk fa laa teg sama fas. la moo bëgg a waaw mais day wut bës rek Alaaji Mbaye man mooy loolu. du ma bës nee na bu ñu ko mu yóbbaale ngir bëri ak yow. doole bi xaj na ci Alaaji Mbaye doole bi état bi may ni ah, a waa booy teel drapeau bi noonu rek tee ko nii booy laal ngeen fil bi ah ah booy laal nañ fiil bi mais ñu dem waaw jox ko micro bi. waaw ginnaaw bi yàlla di julli ci yonent bi di sant euh, sama staff maa ngi sant bu baax baax sama staff. di sant sama waa écrit bu baax a baax a baax gis nga ragal fayda day xañ a wërsëg. Mhm. barki Serigne Saloum Mbacke ñu bëri gëmatuñu woon Jokal. Mhm. billaay waa damay entraîné waaj ñëw. Mhm. am tolof tolof gaa ne sa waay maa ngi sant tamit bu baax Kéba Kanté. sama papa Kéba. léegi la jóge sama kër bi may ñëw ma ne ko. Kéba mu ne ma waaw ma ne ko demal sa kër maa ngi lay indil drapeau bi. mu jooy. ndeysaan barki Seydina Mouhamad combat bi farewu ma ci 100000. luy loolu. Hmm. barki alxuraanu karim samay entraîneur a ngi nii. ak dayo combat bi. samay moromu mbër a ngi nii surtout booy puy a ngi nii. di ñaanal Ndiaye di ñaanal Sokh di ñaanal sam booy war a bëri mercredi. mais léegi léegi ñëwal ci combat bi dama dama a xam lan moo tax arbitre bi nga taxaw déglu jàppanteeg papa rek taxaw di ko déglu. papa boo jëndee dama ko estimé. xam nga ñu bëri dañuy seetaan làmb te xamuñ qualité mbëri hmm. Papa Boy Djiné dafa mën a bëre barki Seydina Mouhamad dafa mën a bëre dafa mën a wuuree hmm. da ko xam non dama ko doon seetaan dama doon tëdd ba guddi ma taal sama connexion di ko seetaan hmm. ma xool xeetu bëree muy mu leer ma ne man su ma moom ma gën a oyof su ma décollé balaa maa réactionné daf may daan ba jéggi ma te du ma sib naka la waar moo ma dëju di ko ba pare dama ko estimé wallaahi dama ko ñeewantal naa ko biñu jaabante mbër mu ne ma ne ko billaay walaay combat bañ comment ko bañ ma sonn booy bëre may wax combat bi taxawoon ma leen jàmbaar bëréewu ma ak Papa Boy Djiné parce que dama ko ñeewantal te ba man dama defaat sama retour ci làmb boolewu te kenn dóorul kenn songantewul kenn defantewul dara da ngeen a da ngeen a léewtoo ba mu jeex loolay ñeewantal bi loolay ñeewantal bi bilaa dañoo jàppante ma ne ko mbër maanaam yooyu yëpp yéen a koy waxante ci biir barki maa ko wax ma ne ko man dama laa ñeewantal bu ma bëre bilaay walaay man dóor na ma fayu ma. te amoon naa ah, gis nañ loolu gis nañ. Ah, amoon naa opportunité dóor ko mais walaay eh, bu déclenché wu loon bagaar bi sax du ma xeex ak moom. du ma tricher man su ma la nee bëgg naa la mel ni xeex bi nga doon xaar mu jug. nga waaw dama bëggoon mu mu ubbi hostilité laa bëggoon dama bëggoon moom mu débuté ko parce que waroo force am force duñu warante mhm. parce li ma bëggoon moom la bëgg ok xam naa ne wor day am te du ma wor Baye Fall mu dugal boppam ndengeen la tëj biir bëre nga bàyyi ko ba mu décollé nga génn yow tamit jël sa loxo fi nga xamante ni ci ginnaaw ngemb li di di foofu lan la woon da nga wër ndomb wala da nga ko mu ñëw sa kaw. Papa naa possibilité coup de ko wër ko ndomb ñaari yoon. essayé nga ko non premier bi sax mu maanaam na mais. am na wax ju ma lay wax boobu te maa ngi ciy dama ñeewantal bëre ak moom. ñeewantal mu lu munul ñàkk la. li munul ñàkk la. moom bu deba moom bu déclenché wu loon bagaar bi du ma ak moom. comprendre nga parce dama ko ñeewantal quoi. ba nga jàppanteeg moom sant nga doole ci moom. am na kattan te Papa naa la wax leen lu bëriwul de. Ah. du ma yàlla du ma yónente mais wallaahi azim bu fekkee bàyyiwul làmb. billaahi wallaahi taala dina dégg ndax xam naa ne bu amatee làmb dinaa ko def comme ku ma booxal ndey ak baay. ndeysaan. barki Seydina Muhammad. Hmm. billaay wallaay taalaay lu garaaw laa lay expliqué man dafa am fu ma jógee am fu ma dem jëlee fa ndam. Hmm. Papa Boy Djiné bu nangoo ñu dem fa mu jëlee fa ndam. maa la wax lu garaaw. mais la moo ñeewante ko. li muy dund dama ko dund. ñii booy gis nga booy di ma topp nii. ñii ñoo gën a néew sama koñ tey bi ma génn wallaahi al azim amoon amoon amoon ku ma jox sarax. depuis Tidiane Faye laa gëj daan mbër. waaw. ba may gën a tey aw ma woon yu ma jox sarax dama doon forcer booy booy di daw. ndeysaan ñi ma jàkkaar loolu gaale sama dëkkandoo kenn génnu sa gaale. barki alxuraanu karim sama noo barki non damay wax dëgg. waxuma leen pour xarab leen mais nag defet moo demee noonu quoi. lan moo waral loolu. non amaana sport la. maanaam pour wàllu qualité ndam nu mu neexee ndam boo amee ndam. nit ñi ni ñu lay bëggee comprendre nga. ak boo teglee ay defet nit ñi dañ ne ah a waay du mbër waay. tolof tolof looloo tama ma ñeewantal Papa Boy Djiné parce que ñu bëri dañ naan waaye kii du mbër damay dugg commentaire yi nii di lire commentaire yi. niñ may xarabee noonu lañ koy noonu lañ koy xarabee. te loolu neexul ta jàmbaar la. mais courage bi nga am ñëw bëri si ak ci li nga jógee. ak dal gi nga am ba mën a ñëw tey téye combat bi ci sa loxo ba daan ko ci gaañoo papa gaañu woo lan la. waaw la. gis nga bu la gaa yebee aduna maanaam boo amee staff boo amee kilifa Mata Ndiaye ne sa ménagère maa ngi koy gërëm au passage combat bi muy taxaw moom dafa nekk nit ki nga xamante ne bokk na ci ñi ma gën a jox cër sama aduna dama ko jox cër li ñuy werante maa ngi moom bëriwul dafa ma naan defal lii ma ne ko garaawul bi combat bi taxaw dafa ma ne jokkal bu dee mënoo daan Papa Boy Djiné baal làmb bu dee mënoo daan Papa baal làmb conseil wu ma ci woowu ma ci néew ma ndax déedéet wala yaa ko bëral sa bopp maa ngi koy sant maa ngi ko maa ko bëral sama bopp ànd seeg sama waa écrit course yi hmm. dañ ma bàyyi ak ay booy yu ndaw ñoo ma doon teg soog din dama doon entraîné bay wàccu hmm. daw ma ci musculation combat bi doo ma ci saal benn yoon. Eh, bu jo eh, léegi fan nga jëm léegi. kër Kéba laay jëm nii. yóbbu ko ah, ah, Dara kër Kéba ci baat fan nga ci làmb. instant toll nii nag bu dee dëgg rek a neex yàlla man aw ma choix aw ma lu may décider parce que dama am kilifa. ah li ma jaaxal kay mooy li Alaaji Mbay toog fii wax ko fii yëpp. yow nga ñëw moom bëgg xëcc gaay waaw ne yow yow gaynam nga alaaji may ma ko ah. mën léegi moom mën sax waaw ah, léegi waaw moom mën waaw maa ngi leen di kontaane ah maa ngi gërëm dem waa Kër Massar gépp may dama tuuti Mor Diouf Mor eh. Diouf Mor Diouf maa ngi lay gërëm bu baax bilaay may na ma xaas bëri maa ngi gërëm sam waa village maa ngi gërëm sama booy ñoom kuluxum ñoom mbërsa yaa ma dégg ñoom lambaay maa ngi gërëm ñoom bamba sama sama électricien ñoom tafa waa Ngërëm eh. eh mënoo lim ñëpp borom Ngërëm yoo xam sëriñ waaw d' accord bi. boo xam ni Jokal tey bu ñu ko joxee. xam nga ne yaa ngi moom làmb la man damaa bëgg a bëriwaat avant fin de saison bi. yaa kan kan nga bëgg a ñu ngi wure. xam nga semaine bii ñu ñëw. làmb yi ngay dugg wala. man aw ma choix. Ah, man du ma bañ adversaire man nañ ma fay rek. daa ah. mais sama Baba Keba. barki alxuraan yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla fay xolam. damaa gëj a toog plateau. gëj naa toog plateau de. <laughs> toog nga plateau. moo tax Kéba foog ma gërëm ko Kéba gars yi mbëri yenn dañuy daan sax di ko xëccoog man. te Kéba maa ba aas la. kenn gënu la koo jege. Serigne Saloum Mbacké ah, mais mais Kéba moom gaanu gaay la non non gaanu gaay ragal fëre day xañ a wër. non mais gaanu gaay <laughs> eh. mooy jotteel xam nga tey jii li mu wax nii rek. waaw war naa mën a encourager papa booy jinne xam li ma la wax booy ci bi lañ ne jaajëf moom nee na tëngeej bi la jógee ba fii ndax jokkeel ah. nuyul ñu waa tëngeej dégg noo tudd. noo noo allah. Eh, eh, El mhm. papa warul découragé. waru ko dégg nga jokkee li mu wax. li mu wax dafa daw yaram dafa daw yaram. parce que boo xoolee ci biir bëre bi. wax na ko te feeñ na te du tricher xam nga lu tax. Mm-hmm. bu papa ubbiwul woon.